man damay sant dama dama kontaan ci li ci xew. ah bon ah dama ci kontaan bu baax a baax. on ne peut pas construire sans détruire. tout benn boroom xam-xam bu mag a mag a mag. moo ko mm-hmm. wax. Mm-hmm. Euh, détruire critiquer c'est détruire donc liy dox da gis ne euh, am na crise nga. jël loole teg ko fee teg leneen indi leneen lu bees CEDEAO euh, yàgg na dugg ci crise mhm. parce que sànq Albert a ngi wax la crise du présidentialisme en tout cas en Afrique francophone la crise du présidentialisme est là depuis 1960 depuis ouais. d'État militaires mhm. euh, loolu chef d'état yi ni ñu yore woon seen état yi noonu la ñu géré aussi CEDEAO hein saa yu la neexee nga jël constitution bi dagg lii jël les sotti fii et cetera da ngay lu ko gars yi tuddee yére yooyu nga xam day bari ay patchwork mooy patchwork voilà voilà euh, constitution yi noonu lañ ko doon def donc bu président defee deux mandats war a def troisième mandat indi constitution baare daal di def troisième bu la soldats yi daanee ñu laa ah, coup d'état fekk yow def nga coup d'état ba pare donc yooyu moo fi am ati yi yëpp euh, bon Mali soo xoolee Mali euh, depuis Modibo Keïta defe naa benn président civil la ñu mas a am muy IBK IBK hmm. à part Modibo Keïta IBK la ñu am comme présidentiel ATT ah était un colonel muy def coup d'état hmm. soo jëlee Burkina Faso depuis euh, je ne dirais pas euh, depuis depuis Yaméobo peut-être mësul hmm. am euh, président civil maanaam depuis benn président civil defe naa lañu amoon wala Sangoulé Lamizana ñaar ñaar voilà Yamayogho sa Sangoulé non Sangoulé était un militaire donc voilà benn président lañu ma sa am euh, civil Thomas était un était un militaire. Mm-hmm. Blaise ñoom et cetera tous ces gens là oui après c'est vrai que par la suite def nañu ay élections kii euh, gagné euh, comment il s'appelle. qui était premier ministre de de Blaise d'ailleurs hein. Caboret non Caboret euh, Christian Jean-Marc Christian Caboret c'était un civil. donc voilà soo demee Niger depuis Diori Amani aussi bon y a eu des civils très peu mm, et cetera donc Sénégal daal moom voilà macha allah je touche du bois alors euh, AES li ñu def en fait. CEDEAO dinañu àndaat mais hmm. àndaat ànd bu gëna a au profit des peuples lay nar a doon xam nga Diomaye nee nañ ko waaw te ñu bëgg nga diriger CEDEAO mu ne non moom amul boobu jot tey hmm. soog a ñëw am na yu muy lijjanti et cetera et cetera mënta jiite CEDEAO mais suñ ko ne doxal diggante bi ah da ciy sawar hmm. da ciy sawar trop parce que en fait ñee la ñuy wax moom loolu la d'accord bien yi mhm. li ñu ne CEDEAO dañuy fonto ay affaires yi syndicat chef d'état la moom d'accord na ci de du ko waxee noonu mais d'accord na ci lii mu wax critique yi mu def CEDEAO critique yooyu la ñëpp di def euh, CEDEAO c'est pas une institution des peuples c'est une institution des des chefs d'État donc il faut aller vers le changement et foog changement dina am moo tax man hmm. euh, bon maa ngi koy ñaanal mu réussir je sais que dina ko réussir parce que ñii itam soxla nañ ko AES